waaw bisimilah rahmaani rahiim euh, maa ngi tudd Mouhamadul Amine Fall premier vice président fédération national des associations d'école coranique du Sénégal euh, ñu ngi fii tey Thiès ci turu fédération bi bureau national fédération ak conseil national bi nga xam ne mu ëmb fédération bi ak bureau régional bu Thiès ñu ngi teew fii tey ak euh, suñu mbokk suñu nattango Serigne Bassirou Kane euh, li ñu fi tax a teew mooy xew-xew bi nga xam ne moo fi am jàngalekat alxuraan Sénégal yëpp ñu ngi boole seen bopp nekk benn xol benn kàddu taxaw jëmmi suñu mbokk Serigne Bassirou Kane ci tiis bi nga xam ne moo fi am ak nattu bi nga xam ne moo fi am waaye balaa ñuy yëkkat suñu kàddu ci wàllu googu danañ njëkk ndokkeel suñu mbokk Serigne Bassirou ndax gone la goo xam ne gii mënoon naa defi leneen mu jël jëmmam ji sacrifier ko ngir jàngal doomu jullit alquran lépp luy wërsëgam ak dooleem xalaatam ak pas-pasam lépp mu boole ko ngir taxawu doomu jullit yi jàngal leen alquran yar leen te mosu yàlla kenn benn dërëm loolu liggéey la boo xam ne li muy doon doon ndaw nga xam ne wóor na ma ne amagul ñeent fukki ci la nekk mm-hmm. kon moom ci liggéeyu yonent yi ak muslixoona yi seen waar ci la ne ñoom nag ba ñu sóoboo ñoom yonent yi ngir liggéeyal yàlla ngir wuti ko amul lu luñ gisut nattu bu ne gis nañ ko seen yaram seen njaboot seen i dongo seen dëkkandoo seen alal loolu kon képp koo xam ne ki yaa ngi bëgg a dugg seen ndono na nga bàyyi xel na fa nattu yoo fa am mm-hmm. kon tam suñu Basiru xam ne ne xam na loolu mm-hmm. waaye loolu ñu ngi koy wax di ko jëmale ci way juru gone gi bu jur gone yi sax lay wax mm-hmm. ak itam waa Sénégal mm-hmm. fédération bi li mu jël décision mooy événement bi du ñu nangu kenn liire ko benn lu bokkul ni mel mm-hmm. nit ku jóg guddi ñal gu miir dugg ci kër loolu kër gu ne mën na fa am loolu nekkul na ci daara rek da mën a am nit koo xam ne nit ku yàlla xiir ci ci ci cambriolage même palais présidentiel nit mën na ko cambrioler nit mën na faa tëb ñal gu ba dugg fa def fa naka sul doon loola moo am ci daara ji kon du càgganteeg sëriñ Basiru du négligence am du ñàkk a du ñàkk a aar gu mu ñàkk aar dong yi mhm. waaye ñàkk kaaraange gu am ci réew mi nga xam ne lii xew fii mën naa xew feneen te dafa daan xew feneen démb barki démb lay xew feneen moo ñëw fii kon na ñu ngi ñaan waa Sénégal ñu événement bi ñu jàppee comme comme ni ni mu defee presse bi itam ñu ngi leen di ñaan loolu. di ko exiger bu baax a baax sax di ñaan presse vraiment nañuy joxe information bi point fédération nationale des associations d'écoles coraniques du Sénégal du may benn presse wala benn individu mu jéem a exploiter xew-xew bi ngir bëgg dal ci kaw daara yi wala mu bëgg wone wane daara yi jàngalekat yi alxuraan façon boo xam ne bokkul ak li xew-xew bi amee mhm. loolu bi mi ngi wax ne du ko nangu hmm. fii laay déclarer solennellement ci turu fédération may ñu benn rajo de la place wala benn presse mu jëfandikoo événement bi ci li ñuy wax wax sa xalaat mhm. ku ci def wax sa xalaat ba tudd fi daara ji maa nga tudd sëñ daara bi maa ngi tudd donga daara bi tudd tur ku ko def mhm. fédération bi dina la porter plainte mhm. événement la boo xam ne xew na ci kër gi day xew feneen yoon moom moo am responsabilité bi aar eh, eh, population bi fay am na kaaraange ñàkk na nit def na lu mel nii mi ngi ci loxol buur li ñuy exiger mooy na yoon doxal yoon mm-hmm. bu ñu wax ne ab donga la wala ñu jàppe comme doxandéem bëgg a pamte pamte affaire yi naan waa ji dafa dof ak yooyu bi ñu ko nangu fédération mi ngi may bët ak nopp ci xew-xew bi nañ ko topp niñ ko war a toppee ba li ci war am loolu mooy li nga xam ne mooy déclaration fédération bi gannaaw bu ñu euh, massawoo suñu rek suñu mbokk taalibe Serigne Bassirou kan di masawu itam yaayu gane gi di ko wax ne ko na sant yàlla ndax dafa am ab shahid li mu am bu ëllëgee bu ko yàlla fayee ñi ko amul dañ ko ñee ñi ko amul dañ ko ñee te itam mais bañ mooy amalgame journaliste dafay reléguer information joxe ko mais exploiter situation pour jaay sa sa presse loolu loolu la ñu wax sa xalaat kenn amul droit tudd tur nit surtout événement mel ni am bees góom góom bu car car yi naaj nga bëgg tudd ay nit ñu koy lawt lawte ku xam wax ku xamul wax ku nekk Casamance amul benn relation dara sax di téléphone di wax loolu la ñuy def loolu jotewul ak liberté information bu nit bëgg a xam na ñëw fi nga ko war a xamee xam ko jàll ko ñu mel mais li ñuy bañ mooy yëf yi yëf yi point la war a am mu mujj nekk ab suite bu mel ne presse bi dañuy wut information bëgg cee jaar loolu yëpp yàlla ñun amuñu moom benn problème Euh, liberté liberté nit aussi. dëgg la nit euh, autorité yi am nañ ci wàllu ci aar def pour gën a aaru mooy mesure. gën a aaru baa ngi nii hmm. andur la dërëmu kenn demu ci sëriñ bee ko tabax. Hmm. bu ñëw ku dugg ci barab bi da xam ne fii bari na fu ay nit nekk fii moo ko gën a aaru. mais problème li ñuy aaru mooy ne état assurer sécurité population nan la état def ba assurer sécurité population kooku moo ko xam. mais li wóor mooy fii li fi xew responsabilité état la. maanaam fii amul beneen disposition bu ñu fiy jël pour lii bañ fay amat. mënuñu mënuñu garanti dara nit woo xam ne dafay yéeg mi di cëppeelu moom kooku mënuñu ko garanti li fi état jàppalu ci loxo wooyu yëpp ak dafa kat ñaaw te fi li leen loxo caabi feete leen gannaaw mënuñu assuré lii du xew fii ma ma xew fenn nattu la boo xam ne li mu xewee fii noonu la mën a xew feneen parce que cause nag ñun li ñu ma li man mooy jël suñu gone dugal ci ay néeg tëj kay ñëw yéeg miir taj ji buntu dugg ci nekk kooku moom maa ngi ne biir palais président de la république nit mën na ko ñalgu yéeg miir ya dugg fa caméra la mën naa nekk. mais lu sabab maanaam yaakaar ne moom moo sabab loolu nit ku ñëw fekk ay xale rek nga dóor leen rey ñi jàpp leen yéen benn xalaat bu ngeen ci am lu njort loolu. xalaat cible rek ñëw dóor ay xale rey ñi gaañ ñi. loolu moom nañ ko laaj euh, ñi nga xam yoon mi nga procureur ak ak euh, juge d'instruction bi nga xam ne enquête bi ñu ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom responsabilité déterminer lan moo tax lan moo poussé waa ji lu tax loolu ñoom ñoom ñoom responsabilité moom mi ngi seen loxo te mën nañ ko te loolu la ñuy xaar ci ñoom aussi. sëñ bi dañoo parce que xam nga taskatu xibaar aussi liggéeyam lay def ndaxte tey jii ñu jàll woon information bi xam nga benn dayo bi du am parce que lii loo xamante ne euh, information bi ñëpp war nañoo xam mbir mi ndax autorité mën cee jóg mhm. mais bu fekkee ne da ngeen ne journaliste waratul wax ci mbir mi je pense que loolu dakkal liggéey journaliste nga bëgg a def ci côté boobu. macha allah loolu fédération mënu ko doon bi nga xamante ne. lan mmh. moo tax nga ne bu ñu yëkkatee ci benn mmh. ci lu jëm ci wàllu daara loolu suñu droit presse am na droit relégué information mais nit mën naa am na droit ne sama tur bu kenn tudd ci rajo nit am na droit ne sama tur bu kenn tudd ci rajo nit am na droit. Mmh. droit mayul benn presse muy tudd tur nit te kooku am ci loolu du du du du frein liberté de la presse seen liberté moo moo tax ngeen relégué information bi coow jibul seen relégué moo tax seen seen seen seen liberté de la presse moo tax ñu nangul leen dañuy un point de presse bàyyi la ngeen posé mais suñ tur ak tur daara ci question bii du ñu may kenn di ko lawt lawte question question question de sécurité événement am na fi mi ci loxol yoon nañ bàyyi yoon mu def liggéeyam kuy posé question demal ci yoon nga posé question mais nit que ne Casamance amul amul benn idée ci la xew fi donc dafa wax sa xalaat ku nekk tàmbaat téléphone lu mu xam fi lu ma yàq deru daara ji lool la ñuy la ñuy bañ. président français. Voilà, dis-nous quel est le message que la Fédération nationale des associations, le maître coranique, est venue à délivrer euh, Nous venons ici dans, le, dans notre, notre, Dara, dans le Dara de Sri Bachirkan, pour témoigner notre euh, compassion et notre solidarité avec, avec, lui, avec les talibés et avec même les parents des victimes. Euh, ce qui s'est passé ici est une, purement et simplement une question de sécurité nationale qui incombe à l'État. Euh, c'est c'est un devoir de chaque État euh, d'assurer la sécurité de sa, de population, euh, d'assurer la, la, la, la, sécurité des, des, personnes et des biens. Alors, ce qui s'est passé ici, c'est une personne mal intentionnée qui a cambriolé euh, le lieu d'habitation des talibés. Il a agressé les talibés, il a commis un crime le a était sécurisé, c'est clôturé. Les talibés habitaient dans un bâtiment en dur, ce qui pose la question de, la sécurisation. Ça veut dire que le maître coranique a, tout fait, a, tout ce qu'il peut faire pour assurer la sécurité des talibés. Mais quelqu'un qui a l'intention de cambrioler ne peut pas être arrêté. Donc la responsabilité incombe à l'État. C'est l'État qui doit assurer la sécurité de la population. Nous déplorons ce qui se passe. ce qui s'est passé ici peut se passer n'importe donc c'est un c'est un événement qui passe sa et là ce n'est pas un événement qui est l'apanage des dara ce n'est pas parce que les enfants sont des talibés qu'il a fait ce qu'il a fait c'est un c'est un malfaiteur c'est à l'État maintenant d'arrêter les malfaiteurs ou de mettre des, euh, mm. qui peuvent barrer la route aux malfaiteurs Justement, le supposé criminel est arrêté. Qu'est-ce que vous attendez de la justice Nous attendons à la justice de faire son travail jusqu'au bout, fermement encore. Nous, la Fédération ne peut accepter qu'on commence maintenant à qualifier le criminel euh, et de l'assimiler comme un malade, malade, malade mental. Nous, nous, avons commencé, nous, nous avons appris des signes comme ça et ça nous inquiète. Tout ce que nous exigeons, c'est que la justice soit faite. Nous avons confiance en notre justice, comme tout le monde le dit, jusqu'à preuve du contraire. C'est un talibé, certes, mais c'est un individu, c'est un être humain, c'est Sénégalais. Il a le droit de vivre. Quelqu'un est venu euh, lui ôter la vie. Il faut que la justice fasse son travail sans tenir compte de l'appartenance de l'enfant de 100 mètres. Quoi. Vous avez dénoncé aussi la non-présence des, des, autorités depuis cet événement. Effectivement, nous avons constaté que euh, l'intervention de la police n'a pas été effective euh, euh dès le moment que euh, le maître a contacté la police. La police passé plusieurs heures à tergiverser selon la version de, euh, du maître coranique, ce que nous déplorons. Ça, nous fait aussi douter de la tournure que peut prendre le dossier. la police qui, qui, est, le, qui est le, premier rempart, rempart euh, de la sécurité nationale. Si, si, on lui annonce euh, un crime quelque part, et il, il hésite, il tergiverse, mmh. il passe des heures avant d'arriver au lieu, c'est le maître coranique même qui a, qui a, appréhendé et arrêté l'individu. Mmh. Donc ça aussi, ça nous inquiète et ça nous pousse à, à se poser des questions, des hmm. questions euh, légitimes. sëñ ko justement waaw man mohamed laa tudd di magu ki nekk ci daara ji mooy daaray alxuraan bi hmm. bon bon ni ñu ko gisee daal mooy sécurité bi bon des na tuuti si wàllu national comme ñun bi ñu kaa bi dabee moom bi ñu demee ay cant guddee ñëw bi ñu ñëwee la fekk affaire yi am. Hmm. bi ñu jaaxlewee gi yóbbu na benn xale xamuñu fu ñuy jaar ñu dem ci police bi on a fait trois police mhm. kenn ku ci nekk ci wàllu sécurité mënuñu dem déplacement amuñu oto ba à la fallu que sëriñu daara bi moo mujj dem jéngu wëri ko ñu nem ñu dafa tuxu nekk na beneen kër ñu dem foofu fekk si kër gi mu tuxu leen jaayante ba jàpp ko jël ko indi mm. kon boog li ñu mën a wax mooy que ni même bu fekkante ne am na lu am ci àdduna bi mm. wala si loo xamante ne dafa nekk si sécurité national mm. bu population yi jaaxee fa ñu war a daw mooy fañ ko yaakaare te fañ ko yaakaare bu ñu amulee ndimbal mooy que ni bon dañuy jaaxle parce que ñu bi ñu demee foofu sax policier bi waa ji génnee jaasi bi dañoo daw mujj na sëriñ bi moo mujj jéngu ak taalibe yi jàpp ko yeew yóbbu liñ ci mën a wax si ay xalaat daal mooy que ni ñaaw na ba pare bon li ci mën a des nag mooy ñu rok yokk sécurité bi ñun si suñu bopp bu fekkante ne des na ci état bi wala ci ku mu mënti doon ñun ñi nga xamante ni ñun la mbir mi nekk si suñu kanam ñu téye suñu bopp waaw